waxu mbedd maanaam ñun duñ ci mën a wax trop euh, hôpital li ko tax a jóg mooy faj bu ñu la indilee malade nag ñu ne da nga koo xëj na euh, euh, souvent li ñuy gis lu bëri mooy nit ñi dañuy ñàkk ba pare ñànki ñàkk ñànki il faut bu ñu amee ku gaañu wala ku wàññeeku ñu bugg ko wékk kenn mais jàppuma man ci hôpitaux yi même bu dee am na lu ñu leen di critiquer même bu dee am na wax dëgg yàlla lu ñu leen di ŋàññ quand nit ñëw foofu ñu bañ ko toppatoo rek ba kooku ba kooku génn àdduna vraiment man gëwuma lool en tout cas fii ci Dalal Jàmm et même certainement ci yeneen hôpitaux yi ma xam te xam naa ci lu bëri yaakaaruma ne dinañu indi nit rek di ko seetaan nii pour mu gaañu parce que ñun suñu wareef li ñu war a def mooy faj bu ñu fajul existé wuñu bu paj amul ci hôpital kenn du wax docteur kenn du wax directeur bay wax leneen donc ñun pour ñu exister il faut malaat am te malade yooyu nag comme moom moo tax ñu exister ñooñu dañu war a taxaw si ñoom daw ci ñoom euh, def suñu kéemtalaay kàttan pour que wax dëgg yàlla ñu mën leen faj en tout cas fii dalal jàmm euh, képp ku fi ñëw muy xale muy mag dinañu fexe dalal la ci nu mu waree mais également lépp loo xam ne doole la xam-xam la équipement la laaj suñ ko yoree dinañ ko mettre à la disposition malade boobu pour que am yaakaar mu wër lii wër nag yàlla moom mooy wëral mais ñun dañuy faj xam nga système bi nag dafa nekk système bu organisé système bu organisé mooy bu fekkee ne district bi am na cas yu fa génn ñoom dañuy remonter information bi au niveau du ministère ministère def note envoyé ñu ko au niveau décentralisé ensuite ñun ci suñu bopp euh, suñu hôpital am nañu cellule de surveillance épidémiologique euh, bu fekkee ne information bu fiable la bu war a jaar yoon egseegul ci ñun mais xam naa ni personnel bi ak ni ma leen xamee seen farlute ak seen engagement tout le temps dañuy anticiper ci paj bu mel noonu yéen ñëpp gis ngeen ko kaaw deng yi fi amoon kaaw kaaw Crimée Congo yi fi amoon ak yëpp defe naa hôpital Dalal Jàmm lañ ko euh, décelé génne donc cellule bi jàpp naa ne cellule bu efficace la ñoom ñu ngi ciy bàyyi xel jël nañu seen i disposition seen i motuwaay mais aussi dañuy xaar information officielle bi nga xam ne dafa war a jógee ministère de la santé beneen taxawaay boo xam ne moom la ñu war bu fekkee ne dafa am taxawaay beneen bu wuteeg bi ñuy taxawee ñu xool taxawaay boobu ñu taxawee noonu mais ñu dégg nii rek ci ay wax wala ci ay kii rek après mu bouleverser suñu organisation wala bëgg bouleverser système bi sinon dañuy tiital nit ñi pour rien alors que du ko jar donc euh, communication bi dafa war a nekk une communication responsable système bi dafa am nu mu tëddee am na ay autorité yu mën a déclarer kaaw euh, kaaw épidémie wala kaaw leneen donc autorité yooyu ñun ci ñoom la ñuy jokk ñoom la ñuy déglu te mu am ay xale yoo xam ne dañuy nekk ak ñun tout le temps feebar ay xale yoo xam ne mënaluñu seen bopp ay xale yoo xam ne aussi euh, du seen yaa yaafuuse moo tax ñu nekk fii donc tey jii bu ñu gisee seen yeneen i morom di fete feneen ñu leen di jox cadeau wala ñuy gis papa Noël wala en tout cas di bég feneen euh, jàpp nañ suñu wareef la ñun parce que dañu jàpp ne suñuy doom ñoo fi nekk wareef la pour ñun ñu xool aussi naka lañ leen bëggalee donc loolu moo waral tey jii nii gis ngeen am nañu ay partenaires yu jóge ba France am nañu ay partenaires yu jógee ba Suisse am ay partenaires yu bëri yoo xam ne dañuy intervenir ci biir hôpital bi d'ailleurs ci la ñuy profito pour créer le réseau euh, des partenaires de l'hôpital Dalal Jàmm ñooñu ñoo ñu jàppale tey jii nii ànd ak suñu service social euh, organiser lii pour que bépp xale boo xam ne yaa ngi fi hospitalisé ñu jox la euh, cadeau comme ça yeneen morom yi nga xam ne feebarul mais ñi nga xam ne sax dañoo feebar ñëw rek maanaam pour consultation ñoom ci fête bi la ñu bokk ñoom it ñu mën leen euh, teral jox leen également ay cadeau wax leen won leen nekk hôpital euh, c'est pas que da ngaa nekk ci beneen monde nekk hôpital nekk hôpital la yoon la mais boo nekkee hôpital tamit dañ laa war a toppatoo comme ni nga war a toppatoo boo nekkee kër ga loolu mooy suñu gis-gis loolu mooy suñu doxalin loolu mooy suñu wareef ci loolu la ñu nekk ci loolu la ñuy doxal Euh, kuñ ciy fekk comme association yooyu alhamdulilah te gis nañ ne ñu bëri ñu ngi ñu ciy fekk si kon dañu jàpp ne yoon bu baax bi la donc dinañ ci continuer gën ci def ay jéego.